bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar bu baax di ñaan yàlla sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ju sax dàkk yàlla nanu ko yàlla boole defal amin ñu ngi fas yéenee ñëw ak yéen ci benn secret bu doy waar secret bu yéeme lool bu ajo ci wàllu mën nañ na lépp lu baax waaye rawatina li nga xam ne maanaam moo di ubbeeku rawatina ci ki nga xam ne maanaam moo bëgg am wërsëg am fajug xaajo am ak wegeel ci nit ñi te moom maanaam moo dañu respecté ko jox ko cër mu am wàccuwaay ci nit ñëpp incha allahu laa waaye rawatina itam koo xam ne dafa bëgg suñ borom tabaaraka wa taala defal ko fan wu gudd ak wér-gu-yaram yal nañu ko yàlla boole defal li lépp nag mbokk yi dafay wane njëriñ bi nga xam ne moom lañ leen fas yéenee jox ci ni mu amee solo kon bala ñoo tàmbale ñu ñaan la nga aimé vidéo bi ci barke bi alquran bii ngeen di jàkkaar lool ñu ngi lay ñaan nga aimé vidéo bi bu baax incha allahu taala ndax xam ngeen ne aim bi mooy tax ba YouTube mën koo jàllale ci yeneen utilisateur yoo xam ne maanaam abonné moo xam yéen ñi koy seetaan ci YouTube bi les grands écrans awolof wala yéen ñi koy seetaan ci TikTok bi euh, yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan daal ngeen aimé bu baax ku aimé rek yàlla na nga am gërëmul alquranu karim su ko defee nag secret bi mu ngi nii ñuy fas yéene wax ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax mën nga koo wax ñetti yoon incha allahu taala ñaan gu matale la waaye boo ko waxee itam mën nga cee dolli ñaan sa yitte sa ajo ñaan li nga xam ne bëgg nga suñ borom tabaaraka wa laa defal lépp nga teg ko ci daal di tufli raay sab jë suñ borom tabaaraka wa taala nag ma wax ci alquran ne udduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen te moom lépp loo xam ne wax na ko rek moom suñu borom dana ko defee nam ko waxee te ma wax ne fa inni qarib ujibu daawata daai isa daani ku jege laa koo xam ne damay wuyu woote aji woote ji ci saa yu ma woowee kon nag suñ boroom day ko woo toujours di ko ñaan ngir mu may la li nga xam ne moom nga bëgg ndax moo yor lépp te du jeexal maa indakum yan faddu wa maa indallaahi baaxin kon nag nanu góor bu baax te ñaan suñu borom mi nga xam ne lim yor doyewu ko dara te boo ko dul ñaan mu meree la moo tax sëñ Tuubaa doon wax ne laa tastakil xaajaati lil xalaa'iqi bal iftaxir ilal bal iftaxir ilal qadiri xaalixi li annahum lam yaqdiru an yadfacu darara bi kon nañuy faral di jël suñu yitte ji di ko diis suñu borom tabaaraka wa taala di ñaan ci moom tey sabablu boole kook xool ay jaami yàlla yoo xam ne am nañ ci moom yaakaar am nañ ci ñoom yaakaar ci ne ñoom bu ñu ñaanee yàlla suñu borom nangu ñu jëm ci ñooñu di sàkku ci ñoom ay ñaan ngir suñu borom tabaaraka wa taala mën ñoo defal fajug xaajo ndax suñu borom am na représentant ci kaw suuf ndax inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi kon ñu ngi bëgg a guddal sax ñu tënkal leen li nga xam ne moom la ñu leen andil tey incha allahu taala da ngeen koy bind ngeen déglu ko bu baax a baax baat bii ngay wax. bismillahi irrahmani irrahim yaa azizul izzi fi izzatin yaa azizu a'izni bi izzatika wa ayyidni bi nasrika wa ab'id anni hamazati shaytaan wadfa anni bi daf'ika wamna anni bi sani'ika waj'alni min khiya waj'alni min khiyaari xalqika yaa waaxidu yaa ahadu yaa fardu yaa samadu yaa arhamar rahimin mooy texte bi ngeen di jàkkaarloo rek maa ngi leen koy bindal léegi ngeen xool ko incha allahu taala dee ko faral di def guddul gàtt na saa yoo jullee farata ba noppi dee ko def te di ñaan sa aajo bu baax a baax a baax incha allahu taala doo jóg ci di am mbégte foo toll ndax ay xéewal yu lay dikkal yu bàyyi ko fa suñ borom tabaaraka wa taala ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah